xabaar yi lañu leen di baaxee tey ci àllax ba gi yemook fukki fan ak juróom ci weex bi ma di leen dalal jàmm bokk na ci lu ci gën a fës kàddu ya Amath Suzanne Camara baaxee waat njiital kuréelu Pastef gi Ousmane Sonko gannaaw ba mu fi xamlee woon ci ab vidéo ne dañu ko war a faat daañu dikk ak yéen ci Serigne Assane xel kom ma doon jéem a xaru gannaaw mbirum góor jigéen nga ñu di ko waxal ci la mu jot a tëddee ñaax yu gune yu góor ba mu jural ko kaso kàddu ya Abdou Mbacke baax dolli yëkkati ba ko ab njege ñaaleem seeti jee ca kaso ba daañu digg xabaar yi danañu sàmm la di xalaatu Mamadou Ibra Kane ci ndajem jiitu réew mi Kalifon tàggat yaram di ca toftandi ni ñu koy defee saa ne nag mbokk yi ngeen taaxiru aslëf bàkk ba jib ma daal leen koy yaatalal mu ngoog bàkk ba jib na nuyu naa leen bu baax a baax yéen ñi safoo di ñu teewlu ci Dakar Buzz leen jàmm ci xibaar yi directeur général entreprise ndukkumaan gi di Omar Ndaw talaatay démb ba ndëgë ni nag manga kaso doyen des juges moo ko placé sous mandat de dépôt ñeel abus de confiance ak détournement de deniers publics koppar gaa nga yemook rek 148 ba di gendarmerie nationale bu nu sukkandikoo ci libération Omar Ndaw dafa signé woon ak gendarmerie contrat ngir tabaxu benn brigade ca Koungheul mu waroon a pare rek fukki fan juróom-ñett ci weeru février ci kopparuk 118 journal bi wax ni rek gannaaw ba mu jotee 148 entreprise Ndoukoumane mësul woyal liggéey ba noonee la commandement bu gendarmerie daal di rek jébbal plainte teg ko ci ndoddi Omar Ndaw section de recherche teg ko loxo defee ko parquet ba juróom-ñaari fan ci weer wi mu di seetalee boppam jafe-jafey mbas mi dépôt directeur général expert auto bi di Pape Samba Badiane teg nañu ko loxo ba defeere ko parquet ba niki démb ci talaata gi particulier ak responsable entreprise yamu jaayoon ay woto te livré wu leen ko daal cee béeg nag yaakaaroon ni rek danañu leen delloo millions yi ñu laajoon homme d'affaires bi waaye libération di ñu xamal ni Pape Samba Badiane gannaaw ba ko sûreté urbaine defeere parquet ba benn bés dong la fa def ñu daal di koy may liberté provisoire à vue daal koy bàyyiwaat te defeere wuñ ko sax parquet ba boobu ba tey nag victime di dundee yaakaar bokk na ci ñam ko def nag banque agricole di Ibrahima naan Assou Samba Badiane ma nga yoreel ñett ñi kenn ki rek 154 keneen ka 166 ka ca des nag 29 millions ci neen rek juge ba nemmeeku woon na rek fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février gi bésu fayitu expert auto Aïssatou Diop Fall fowewul institution wu réew mi tey rek bëggul ku di ko fowee journaliste bi nag ñaawlu na rek vidéo njiitu réew meek Californie nga askan wi cooy bés yi yëpp Aïssatou nee na dafa yërëm Macky Sall ndax boo yoree fonction gi mu yor da ngaa war a rek xam li sa wareef tey déglu askan wi di ànd ak ñu dëgg rek soxal li mu def nag kenn rafetlu wu ko ba ci rek ña fareek ñoom nee na nag Macky Sall jàngatul ci audience ga mu mayoon Jibril Ngom ci wàccaayu élection ci lakk na ko ci ndaje ga mu am ak Kaliphone ma doon ko saaga rek sénégalais yépp doon ci mer li mu def nag dafa saagal askan wi yépp ndax du lii la ñuy xaar ci moom l'observateur moo di ñu jam charrette bi toll ci fukki at ak juróom-ñett di wuyoo ci turu Ousmane Cissé mu jaare fa ñàkk bakkanam paaka ko Baye Saliou jam ci baat gannaaw loolu nag mu daal di daw gendarme yu brigade sangal Walkam ñoo ko teg loxo ubbi si l'enquête sapeur pompier bu 14 compagnie d'incendie et de secours bu Rufisque demoon nañu ca bërëb ya ba yóbbu néewu Ousmane Cissé l'hôpital ngir amal sap autopsie. préfet wu Ndakaaru daal dinay tere ndaje ma kuréelu Yewwi Askan Wi woote aljuma fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi ca place de la nation euh, comité bu Ndakaaru gaa nga wékk ndogal la mu jël nag di wax ni rek day jóggate article bu code électoral gi di yem ci fanweeri fan yi jiitu campagne électorale gi Yewwi Askan Wi nag nee na muy neex muy nakkari danañu am rek seen ndaje ga xibaar wu tiis loolu moo fi wàcc ci ñeel génnu pàddina Ismaïla Fall mi ñu gën a xam ci Mathio ñu xàmmee woon rek ci xaritam bi di dem si yàlla Thione Ballago Seck gannaaw feebar bu yàgg bu ko tëraloon moom Mathio nag mujj na wuy ji boromam Dakar Buzz di bokk nakkar wi ak waa këram ay njegeñaaleem di ko ñaan rek sunu a a dépôt ñeel offense au chef de l'État diffamation ah, ba ko benn njegeñaaleem seeti jeen ak parlementaire gi da ko xamal ni kaso dafa metti ah, mësul jot plainte ci àddinaam bi moo di njël benn yoon gi muy dugg kaso ni ko source a di xamle ah, waaye nag waaja wax ak journal bi xamlewul ndax parlementaire gi rëccu na déet rek kàddu yamu teg ci ndoor di njiitu réew mi Macky Sall lu ci mën di am nag waa këram dal dinañuy jéggalu njiitu réew mi association de malfaiteurs corruption de mineurs acte contre nature pédophilie viol sur mineur proxénétisme ak menace ci ay gune ñu toppee Serigne Assane Mbacke Xelkom ak ñeenti nawleem ñu waroon a janoo ko procureur démb ci talaata gi waaye daal bu ñu sukkandikoo ci l'observateur seen janoo ba procureur dañu ko mujj toxal ni nag a yi di Abdourahmane Lo jula bi Ibrahima Badiane ak menuisier bi bay di sow gune yi ñu doon sàkku di au Diouf toll ci fukki at ak juróom juróom benn ak te xamari fukki at ak juróom ñaar Baye Diouf moo porté plainte contre X gannaaw ba ko proviseur xale bi xamalee la xew Serigne Assane nag dafa doon jéem a xaru démb gannaaw rek ba mu nee day dem a ndeke lam seet la yor élément yu division de cybercriminalité ba nga xam ne ni rek bàyyi nañu ko xel bu baax a baax si la ñu ko fuyee gis rek lam seet nga mu yoroon ngir xaroo ko Amath Suzanne Camara rëccuwul dara ca la mu fi waxoon ci ab waxtaan mu sekk ak l'observateur àllax bëgg gi dawul daayiwul rek ci kàddu ya mu baaxee Ousmane Sonko Suzanne dafa defoon vidéo doon wax ni rek dañu war faat njiital kuréelu Pastef gi nee na nag Ousmane wax na fi lu gën a rëy euh, la mu wax ndax rek mës na fi wax ni dañu war a fusiller ancien président yi euh, wax na fi it ne dañu war a dajaloo rek génne ji mu ne euh, te mësul rëccu la mu wax mi ngi woy yi moom nag da koo fekk si dong ci fi mu nekk Ahmed Suzanne nee na nangu na wuy ji yoon waaye daal day fekk Ousmane Sonko itam dem wuy ji teg na ci ne rek Ousmane Sonko dégg na bu baax la mu ko yàq tax rek mu yokk kaaraangeem loolu waral nag moo inventé problème mu sabotage woto ga Suzanne di tënkee ay kàddoom ni rek su Ousmane Sonko yemee du jaaxle waaye daal su bàyyi wul la mu nekkee dana leen gis si yoonam Pape Diop dafa yéemu lool ci ndaje Macky Sall baak Californie ma doon ko saaga Pape Diop nag nee na bu doon moom la du ko def ndax loolu day may fit rek ñeneen ñi Sénégal nag dafa toll fu nga xam ni nit ñi seen làmmiñ la ñu yaakaar ngir am dara te loolu warul mën a nekk ci ñay xëy rek toog bañ a liggéey nañu bàyyi politique bi xam ne rek liggéey mooy yore nit bi ay boori 4 heures du matin la ay defkatu ñaawteef sàcc benn pick-up marque Toyota bu société Asila Gum immatriculé DK 32 46 AA ko gaare woon nag ca buntu kër chef de chantier ba ca quartier montagne bu Daara gannaaw la def nag dañu demaat rek ca compagnie sahélienne d'entreprise foofu ca la booy dem a Louga ñu sàcc fa carburant ak benn xaru gardien ba ñu yeew rek dugal ko ci benn pièce su entreprise ga boobaak léegi nag kenn gisagu leen élément yu brigade de gendarmerie wu Daara ñu ngi seeni ay tànk meeru lii la ñuy tudd ci ab coowal suuf ay source di wax ni rek moom Ousmane Gueye l'enquêteur section de recherche bu Ndakaaru déglu nañu ko talaatay démb gi lu ni mel nag gannaaw ay plainte yu bari yu teg ci ndoddam ñeel vente illégale de terrain appartenant à autrui faux ak usage de faux ba ñu ko dégloo ba noppi nag la ñu ko bàyyi mu ñibbi daañu leen toppalaat bépp xabaar bu ci bawoo ca tribunalu Thiès juge d'instruction ba acté na placement su mandat de fanweeri ak benn Fodé Dione may chef maintenancier wu l'hôpital ga inculpé nañu ko rek ñeel homicide involontaire ba placé ko sous mandat de dépôt RFM moo joxe xibaar wi déglu nañu itam chef des soins infirmiers ba ak chefu service administratif gi waaye nag gannaaw loolu dañu leen bàyyi ñu ñibbi seen kër ñetti fan ci weer wi la ñu woon sous mandat de dépôt ñaari agent yi lee di sage femme ba Awa Diop ak aide infirmière ba Koumba Mbodj ña maison d'arrêt et de benn ñàkkoon ca seen bakkan élément yu brigade régionale des stupéfiants bu Tambacounda daal dinañuy teg loxo ab réseau u trafic de drogue kenn ci ñoom di ab militaire ca camp militaire Mamadou Lamine Dramé bu Tamba ña ko jàppee juróom-ñaari kilo wu ma nga jamono ji ca seen ay bërëb l'enquête baa ngay wëy Ousmane Ba mi ngi am juróom-benn fukki at ak juróoma ni ki démb la ko taxawal ca baaru tribunal des flagrants délits wu Ndakaaru ku ñu koo sàcc ay nag te si benn bés dong la ko fa jëloon ngir mu liggéey Ousmane Ba teg bët nag nag gi ngir jël leen bésu ñaar fukki fan ak la Saalum nemmeeku lu ni mel mu yëgal ko ku ñuy wax rek ba yegg rek Morolan daje faak benn baykat si la na ñetti sàmmkat ñu rek jiital na sax kenn ka ndax dafa am jëmm noonee xelu Saalum Njaay bi daal di dem a ci Ousmane Ba mu wan ko baykat bi nag photo wu Ousmane mu daal koy xàmmee Ah, ci la ñu ko jàppee moom ak Ismaïla Sow ci kanam yàttekat ba nag ñoom ñaar ñëpp dañu weddi tuuma ya tege seen ndodd avocat wu plaignant gi di laaj juróomi million ak xaaj ca tribunal ga dafa yeewi Ismaïla Sow daal di teg Ousmane Ba daanuk juróom benn weeru kaso yu muy tëdd ñeel mbirum diffamation ga dox digganteem ak magistrat gi di Souleymane Teliko journaliste bi Madiambal Diagne ni ki démb la waroon a janoo ko juge d'appel bu tribunal correctionnel audience ca cour d'appel u Tambacounda ci a dossier ga nag patron groupe avenir communication gi dañu ko tegoon ci njëlbeeni at tegawoon atum 2021 ñetti weeru kaso gu muy tëdd ba noppi rek waroon a fay teliko juróomi million ñeel dommage ak intérêt talaata gi di ñëw la ñu ma laat audience ga Kaliphone ma nga nekk ci réewu tugal doon yàq Macky Sall soxnaam ak nguurug Sénégal gi xeteme saagaam ya doon na wër sax réseaux sociaux yi Kaliphone kii a Mamadou Ibra Kane nag joxe na ca xalaatam di wax ne rek ba baax a dolli yëkkatee kàddu yu ni mel jëmale ci Macky Sall ñoom ñëpp a ko ñaawlu waaye nag la ko bett moo di la Macky Sall gisee ak gis la mu wax njiitu réew mi yëpp la mu ko wax nag ak la baax a dolli wax du ko comparé waaye daal nee na ñaax yëpp ay offense à la société la waaye du offense au chef de l'État dong accident gu metti moo am àllax ba gi ay booxi du matin ca jàpp dawalkatu moto Jakarta ah, xibaar yi wax ni rek am na ku sa ñàkk bakkanam ak kenn ku ca jëlee ay gaañu gaañu ah, moo di ñaax ña ne woon rek ca moto ba ka doon dawal ba nga xam ne ni rek yóbbu nañu ko l'hôpital régionalu Kaolack ci la génn àddina ah, client wam ba mu yeboon moo ca jëlee ay gaañu gaañu xew-xew gu mag la ñuy waajal dippee ko grand sargal waa daayira Moustarchidina wal Moustarchidaati dëgmal ko rek ngir sargal Serigne Moustapha si ña ngi ko jàpp gaaw fukki fan ak juróom-ñett ca stade Dakar Arena foofu si jam ndar keppe ni ñu leen ko waxee woon rek ci bopp bi mbokk yi ca présentation trophée bu coupe d'Afrique des nations gi ca Bambali Sadio Mané yëkkati fay kaddu di gërëm ñëpp rawatina rek journaliste yi Sadio nee na ñoom ñëpp ay xarit lañu donte yenn saay nag ñu sànni ko ay yu metti lool joueur Liverpool gi nag di wax ni léegi nag xam na la taxoon journaliste yi doon leen critiquer ndax bi kan bi jeexee seetaan vidéo yu bari te gis na ni rek di premier fan ko yem ak 24 millions 500 Liverpool dal di woon koy bañ la daaw ren Nunez ñëw Liverpool nag ci 100 millions mënees na gaawal rek demu ko Mané ca Allemagne Aliou Cissé doon wax ni rek dégg ca Bayern waaye daal di a baax. bi nag international sénégalais bi di Sadio Mané dal ne dem ca l'hôpitalu yóbbu fay jumtukaay yu ñuy fajoo mu di mbégte ci askan waa kañ ko teewee yëpp lu mel nag di gën a firnde mbaax gañu di ko waxal ak rek na mu fonke kanam rawatina Sénégal mbokk yi li la naan di loon tey ci xabaar fii ci Dakar Buzz dañu leen ko toppalaat ci lu ci gën a fës ba ëllëg incha allah.